di yeesal sunu pas-pas ci Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif di ñaanal yàlla sunu waajur yi jiitu muy maam Thierno Kandji ak i doomam yàlla leen yàlla yóbbu ca barsàqu Cheikh na Tidiane nee di sant yàlla bu baax di sant bokk jullit yépp nee fa tabaarakallaahu su ma waxul woon sax bokk yi ñépp xam nañ ne sëriñ bi ne xolam sedd na wala xelam dal na nee bés bu mel nii ku ko woote fii jamono ji toll ci tàngaay wi ci wéradi nee ci feebaru balaa boobu wàcc lépp nit ñi bàyyi ko cinq heures ba léegi ñu ngi toog ne wax dëgg yàlla waxoon na fi daaw ne defal nañ ma loo xam ne wala defal nañ ñu loo xam ne ñu njabootu maam Thierno fay leen dana jafe waaye dañ leen di bàyyi yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo mën a fay kon bokk fi teew yépp di bokk. di wëllëre di ay bokki pas-pas sëriñ bi ne yàlla ñu leen yàlla fayal ne kaddu yi daa mënta ñàkk rek waaye li fi sëriñ Pape Kandji Baye Daara wax Baye as présenté délégation yi ne Alaaji Samba Ndiaye jottali ko lépp mat na macha allah lépp rafet na kon yàlla nañu ko yàlla muurloo ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp sëriñ Moulay Sy bu sëriñ Habib Sy démb la jiitu ñëw yàlla ak bés bii ku indi mu ngi ci dëkk bi kon ñu koy nuyu bu baax di nuyu sunu mag yi ñu nekkal muy sëriñ Mountakha Mbacké di xalifa général di murit ni ko laaj Samba waxee rek noon lañ deme ak moom wax na ne bés bi saa yu ko yëgee nag wi maam Cheikh Ahmed Bamba doon jox maam Thierno ay baayam doon ko def ay magam doon ko def bi ko ko yónnee léegi ëpp na weer kon nag nee sëñ Muntaxa ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ñaanal yàlla yen bii mu yenu kër maamam ak naal bi mu am yàlla na ko àggaleeg sagom bu loolu passé ñu ngi nuyu sunu baay sëriñ Muniiru Njëgeen mii xalifa alaaji Ahmed Baro Njëgeen sunu baay alaaji As Baro ñëw na teew ànd ak njaboot gi ànd ak sëriñ Moussa Ndiéguène ak rakk yi doom yi sëñ Abdourazaq ñoom ñépp ñëw nañ sëñ bi ne yàlla leen yàlla fay ñu ngi nii fa tabarakallahu ne sëriñ Modou Mahfous Mbacké di ko gërëm di ko sant démb yónni na fi teraanga ju ni ko sëriñ Pape Kane ñi defe jàpp ci gan ñi moom it defee na ko noonu kon sëriñ Mahfous ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ne sëriñ Lamp Mbàkke sëriñ bi ne ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la gërëm sa taxawaay ci njaboot gi ci dëkk bi yàlla yàlla jàppale sa kër maam ñu ngi nuyu suñu doom sëriñ Khalifa Niass teewal fi njabootu maam Ablaye Niass ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla nuyu sëriñ Baye Mbacke Tandiang xam ne mooy borom kër gi maam Alhaji Mbacke Tandiang maam Thierno seen buntu kër yi nii la doxe ñu seq jàmm. seq i wëllëre kon sëriñ Màkke bu teewee fii këram la teew sëriñ Baye Niass sëriñ Omar dañoo nekk ci ay yitte dañoo nekk ci ay yitte waaye sëriñ Màkke bu teewee rek Baye Màkke teewaalal na leen kon kilifa diine yooyu fa tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant njabootu maam Thierno gii xam ne moo nekk seen kanam yàlla ànd na wér ak yàgg sëriñ Pape topp ci gannaawam ñun njaboot gi yëpp rakk yeeg doom yi jarbaat yi sët yi ñoom ñëpp dañoo mobilisé wu taxaw ci gàmm gi kon yàlla leen yàlla fay yàlla barkeel leen. comité organisation bi muy Baye Cheikh Kandji seen xalifa Mbuub sëñ Baye As Kandji Arona Diagne ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na yàlla leen yàlla fay yàlla jàppale leen ne monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu bu baax yaag préfet bii nga àndal di lay yóbbante nuyoo ci gouverneur ak membre gouvernement bi yëpp wax ji gàtt na waaye am na solo ñu ngi leen di sant ne CRD bi ngeen ko defee li ngeen waxoon comité bi yëpp daf ngeen ci li ngeen mën lu ngeen mënul nag yàllaa ko dogale noonu ñu jàppee ko noonu rek ñaan yàlla jàppale leen ne administration bi yëpp bi nekk Jurbel ñépp gërëm nañ leen sant nañ leen nee sëriñ Moustapha Guèye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ne Dame Diop it noonu lañ koy sante ci taxawaayam soxna Aminata Tall nee moom it na sa kazalika naka noonu docteur Aline Camara docteur Soumaré nee fa tabaarakallahu ak Aji Badara Baro ñoom it ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax wàllu média bi rajo yi nekk biir Diourbel ñoom ñépp sëriñ bi ne ñu ngi leen ciy gërëm gis nañ seen taxawaay biñ jàppee gàmm gi ba léegi communication yi avant premier yi débat yi lépp lañ koo def dañ ko yombal kon rajo RTS Moubarak Dunia Baol FM gërëm nañ leen sant nañ leen ne ci wàllu télévision bi Mourchid TV ñu ngi leen ciy gërëm daf nañ seen loxo bu baax ci gàmm gi ne maraajee nag ne sànq daf ne sama doom la sama jarbaat la ne bu dee ci wàllu Baye Talla Dieng ne Baye Talla magam la ne yaayam sama bàjjen la kon Mara sama doom la bu dee wàllu yaayam soxna Daba Ndaw sam papa nijaayama kon Mara cër yim am fii bari na jàpp na ko it ne Mara sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla ne xam naa fa tabaarakallahu dafa xaw guddi ne ku tudd lit nee nga jéggal ko rek xam ne xolam tudd na la waaye mbokk yi waa Ndar yi waa Saalum waa Kees waa Kaolack ñoom ñépp gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla ne fa tabaarakallaahu sëriñ afis seen doom bay ma xujja seen moom it ñu koy gërëm ñu ngi koy sant di di gërëm Adja Jaaretu Sarr ne soxna Fatou Seck ka ñoom ñëpp seen taxawaay sëriñ bi ne rafet na maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla ah mu le maire nag nee ci moom lay mujjee nee mooy maire dëkk bi de moo war a dalal gan yi moo war a yeeri gan yi kon Alaaji Malick nee ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal di ñaan yàlla yàlla jàppale liggéey bi nga bëgg ci dëkk bi yàlla ci yàlla jàppale ne a ah, sëñ bi ne mbaa fàttewu kenn rek ne lay sàmba ne yéene na tudd ñëpp ne alhamdulilah rabbil alamin ne alhaaji galo di wëllërim galo jeng moom it ñëw na maa ko ziyaare bu baax ne xam naa suma ko mënoon damay jug kenn ku ci nekk fa nga nekk ma jox la loxo nuyu la gërëm la sant la ah am na ñu fàtt sëñ bi ne ko waa France yi ñoom Medinatu Rasul nee ko ñu gërëm leen sant leen ne xam naa ko fi sant Mbay wala Cissé wala kamara ne boo paree invité la la reer ne xaaj ma dogal jóg di sunu jarbaat ne ba li ngi romb yëpp ay reer la préparé indi ko ci kër gi ne ko sant Cissé wala Camara xaaral reer ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp animation ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi ñaan yàlla nag Sénégal gii yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla fi yàlla def jàmm yàlla fi yàlla def jàmm ne suturé fii fi mag ngi bàyyi woon yàlla na ko yàlla saxal ne di ñaan ñuy rafetal kàddu yi nag di waddu kàddu yi moytu internet bi moytu vidéo yi yoo xam ne taalam réew ne xale sa waru koo wax waxuma magum jëmm ne mag ñi lu rafet rek lañ fi nekke woon ba réew mi toll fii mu toll ne buñ nangu mu yàq suñuy loxo ku ko bëgg a yàq sax danga koy seppi teg ko fële bañ ko cee boole kon fa tabarakallahu réew mi yàlla fi yàlla indi jàmm feebar bii fi nekk ñu ngi ñaan yàlla ñu ne am na lu fi feeñ waaye yàlla ko yàlla dindi yàlla na yàlla fay feebar bi balaa bu yàlla wàcce la waaye gouverneur wala monsieur le gouverneur mu ngi lay yëbbante ci son excellence président makki sal débat yi ñuy def ak séminaire yi ci balaa bi am na solo de waaye li ci ëpp solo na fexe nit ñi ñaan ne na fexe nit ñi ñaan nag kilifa diine yi ñaan mu boole ci imaam yi ñu ñaan ñaan rek moo fi mën a jëlee balaa bi te imaam yi ci lañ bokk koo xam ne bés bu nekk nga dajale juróom benn fukki nit ci juróomi waxtu dox seen diggante ak sa borom nga sëlmal jàkkaarloo ñoom yow sa mën naa duñ sa ñaan waaye mbooloo mi nga jiite amal ci ñoom yaakaar boo jegee juróomi waxtu yi ajjuma ñëw nga dajal lu ma junni nit jàkkaarloog ñoom wax leen nañ def nangam mën naa duñ nangu sa bos waaye mbooloo moom yàlla du la tas seen yaakaar mukk nee na ciy boole imaam yi ci la bokk mooy wax ak ñoom di jëf ak ñoom ñuy ñaan réew mi jëm kanam am na ñoo xam ne kenn du leen gënnaawal te lii muy balaa bi ñaan ak sarax rek moo ko mën a jëlee nee buñ ay milliards te fexewuñ nit ñi ñaan joxey sarax du fi jug nee kon fa tabaarakallahu yàlla ko fi yàlla jëlee yàlla ko fi yàlla jëlee jàmm ju sax sutura àndandoo jaamu yàlla jamu yàlla yàlla nanga ko ñu génn àddina dem ajjana yàlla ko yàlla defal nee fa tabaarakallaahu gërëm nañ ñëpp bokk yi taalibe yi wëllëre yi dëkkandoo yi sant nañ leen gërëm nañ leen nee fa tabaarakallaahu nee laata sañ làmp di ñëw daa amoon yéene bu ñu àggalee mu jox sama doom sëriñ Mahfous mu tëj ñaan yi ñu yeewee ko ba guddi ñu àggale programme bi gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp yàlla bi yàlla def jàmm ku fi ñëwoon yàlla lee la sàmm ba nga dellu sa kër yàlla bu kenn am ndox ci yoon wi yàlla bu am kenn jafe-jafe nga dem ndànk ak sa sago àgg ci sa njaboot asalaamaaleykum wa rahmatulah